Bienvenue sur Salam Vision. xayaaru laa la mil Mamadou la mil yónnee wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp ci gannaaw bu ñu sant yàlla di julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne loolu may ñu jàkkaarlaatu yéen ñu ko ci sant bu baax a baax di ko sant ci weeru kenn yi nga xam ne xéewalal nañu ko ñun xeetu yonente bi alayhi salaam ñu dugg ko ci bismillahi rahmani rahim génne ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ko ciy sant bu baax ñaan yàlla doon nañu xéewal yooyu doon nañu sutura nangul suñu jaamu yàlla xiyaam yaag askaar yaag sadaqaat yépp yàlla ñu ko yàlla nangul ci barke rasulillahi alayhi salaatu wa salaam di julli ci sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi xam ne moo gën ci yàlla bind mi nga xam ne yàlla ci bopp moo jëkk a ci moom ak ay malaakaam digle ne ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dugg ci daal ci limaan ñoom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax ak njabootam euh, di nuyu mboolem xalifa sénégalais boo xam ne yaa ngi ci Sénégal ñu ngi lay nuyu di la ziar di ci jiital xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour hafizahullah yàlla sàmm ko ak wéral ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick yépp yàlla defal leen sutura ci barke yonent bi alayhi salaam noonu la ñu def dem ba Touba fekk fa sunu wuyu tedd wa Sëriñ Mountakha Mbacké moom tamit ziar ko ñaan ko yàlla fan bu gudd ba ànd wér wér ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak njabootu moom borom Touba gi yépp ba Kaolack bu Chara fekk ba Sëriñ Habib Ndiaye ak njabootu Sëriñ Habib Ndiaye yépp ñaanal leen yàlla yokk seen fan ci barke yonent bi salaam sëriñ yàlla yokk leeral taamu ci barkeem nuyu waa daara ja yëpp dem ba dem ba dem ba nga xam mooy lew na fekk fa xalifa ba sëriñ Cheikh Tidiane ziar ko njabootumam njabootumam xalifa ga dem ba kaw rek dem ba Medina Baay fekk fa sëriñ maa ngi ñas ziar ko njabootu Cheikh Ibrahima Niass yëpp ak mboolem xalifa seen boobu nekk ci kaw suuf Thiénaba Ndiassane continué ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziara bu baax a baax taaleen ñaan yàlla def ci ñoom jàmm ci barke yonent bi alayhi salaam mbokk yi mu ngi noonu ngeen ànd ak seen xarit seen soppi oustaz Mouhamed Ndiaye soppi sidna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fas yéene ànd ak yéen waxtaanal leen ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tey nag maa ngi commencé ci yow yaa xaalisal baxri li asdaafi qindi asdaafu biha kunatun aala min aljalami maa ngi wax ak yow Seexul Xaaji Maalik ne yéen ñi nga xam ne yéen xuus ngeen li asdaaf yi am ay sadaf ay vitir alxaaji Maalik nee na indi ya asdaafun indi ya nekk man asdaafun ay sadaf ay vitir yoo xam ne bihaa nekk na ci sadaf yooyu duratu mu su duru loo xam ne aalaa moo gën a kawe minal jale mi ci weer weer bi muy leer leer leer bu am 14 jours Seexul li nekk ci man nekkat ni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yëgoonu sayyidina Muhammad mooy oor la yëgoonu yonent yàlla Muhammad jamaa la mboolem kuy mbindeef ku dul yonent bi alayhi salaam përëb nga ci kanamu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxkat ba waxoon ne Muhammadun basharun laa kal-basar bal huwa kal-yaaqutati bayna al-hajar nee na sayyidina Muhammad basharun la waaye laa kal-basar mbindeef la waaye bokkut ak mbindeef yi li am ba des daal bal huwa kal yaqutati baynal hajar nee na yonent bi salaam dafa mel di ki wurus woo xam ne mu ngi ci diggante ay montagne ay xeer ay doj bu naaj wi tàngee ba jant bi génn da ngay gis ne wurus yooyu biree di di di biree ci leer di melax yonent bi noonu la mel mboolem ku dul ku dul yonent bi rek Sayyidina Muhammad tiir na la ku dul yonent bi alayhi salaam përëm nga ci kanam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax yëgoo ne mboolem kéemtaan bu yàlla indi rek yaa jox ko yonent yonent boobu mu ngi ko amee ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kullu ayyin ataa rusulu kiraamu biha fa innama tazalat min nuuri bihimi loolu la wax kat ba waxoon Muhammad al-Bashari radiyallahu anhu loolu la waxoon ñu ne bépp miracle bépp kéemtaan boo xam ne yonent ci indi na ko rek bàyyi xel ne mi ngi amee ci leeru Seydina Muhammad alayhi salaatu wa Nuux alayhi salaam bi ko yàlla muccalee ca gaal ga moom ba ko yàlla muccalee moom Seydina Nuux yàlla ko muccalee daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Isa alayhi salaam ba muy dekk nit ña ku dee mu mu laal sa bàmmeel nga mu laal la dekki mu fekk ko mu raay bu ñu yëbbal tane mu fekk koo xam ne mu laal ko anee kappe mu dañ loolu yëpp moom Seydina Isa daan ko def waaye mi amee ci daraja Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo tax kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag Muhammad moo ko Muhammad la tudd Muhammad ibn Abdullahi Shayba Haazim Abdi Manaaf Xuzay Kilaab Raka' Luway Gaalib fiihi Maalik Nadar Kinaana Xuzay Mudrika Ilyaas Mudar Ali Niass Mudar Hamra Hamra Sirrihim Ali Nisaara Maada man yujaaji Adnaan Cheikh El Hadji Malick waxul ne Mouhamed ibnu Abdullah ne Mouhamed Nuurullah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne yàlla dafa koo dénkoon Seydina Abdullah mi nga xam ne mooy wayjuru yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi nekk na leer te booba yàlla bind ko dara comme xadisu Jaabir bi Jaabir ñëwee ci bi sallallahu alayhi wa sallam ko yonent bi dama leen laaj lan la yàlla njëkk bind yonent bi ne ko yaa Jaabir yàllaa ngi bind sa leer yonent te boobu dara amul kon leer yàlla màngees na ko denc ko leer gi di sàbbal yàlla di sàbbal yàlla ba ni soob yàlla subhanahu wa taala yàlla def ko nekk fa yàlla jël ko toxal ko ci jëwu aadama bi ba ni mu ko indaatee ci ay baaram ba ni ñu ko delluwaatee ci ndigal aadama leer nga nekk ca aadama lekk ca aadama ba ni soob yàlla leer ga toxu ci yonent yàlla siis nga xam ne doom na ci aadama leer boobu nekk ci siisa aadama ne ko siis leer gi bu ko caaxaane ndax leer la woo xam ne mboolem te àddina ñiy so ki sofe àddina su seen ngël maana yeeg seen bàkkaar yi ci siis ba ñu mu demee ci wa sallam gis nga Ilias bi leer bi nekk ci moom daal na wër kaaba gi ñiy dégg diggal Ilias di wax allahuma labayka ndax leer yonentu yàlla Muhammad ci diggal Ilias waaye ñi ànd ak Ilias di wër kaaba gi ñi ngi dégg leer diggal Ilias li mu naan allahuma labayka labayka laa sharika laka labayka booba leer sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nekk ci diggal Ilias boobu ba leer ñu jógee ci Ilias dem ci Abdul Mutalib ak lu ma tëri gént gént boo xam ne gént ko jaaxal la gént bu mooy la dafa tëdd dafa commercé ca saam bi mu commercé ca saam ak lu ma tëri yàlla dogal mu gént gént bu rëy gént gi mu gént mooy lan dafa gént benn seen benn leer jóge ci ndiggam ndax benn seen ba egg asamaan yàlla dogal mu soppeeku garab bu garab bu naat fees dell àddina bi ab mottali loolu la gént bi mu xëyee mu dem ci benn firikatu gént expliqué ko li nga xam ne moom la gént firikatu gént dana ko li nga wax ne seen dëgg la bàyyi xel na dana am koo xam ne ci sa ndikk lay bàyyi ko ci say njaboot lay bàyyi ko yàlla na ko ci mbindeef yi mu nekk koo xam ne diineem day daj fépp mooy garab googu nga xam ne seen boobu mu ne ko nga gis nag. ne am njaboot boo xam ne ci sa njaboot lay bokk dana nekk ëllëg koo xam ne diineem yàlla na ko yónnee te diineem day matale ñëpp kon Muhammad Abdullahi mooy papaam Abdullahi moomu Shaybata mooy papaam Shaybata Haazim mooy papaam Haazim Abdu Manaaf Abdu Manaaf Xusay ma ko jur Xusay Kilaab ma ko jur Kilaab Murra ma ko jur Murra Kaab ma ko jur Kaab Luway ma ko jur Luway moomu Xaalid ma ko jur Xaalid Fihri ma ko jur fii ji Maalik ko jur Maalik Nadar mooy papaam Nadar Kenaana mooy papaam Kenaana Xusay mooy papaam Xusay Mudrika mooy papaam Mudrika Iliyaas mooy papaam Iliyaas Mudar mooy papaam Adi Nisaar nag mooy maar Adi mooy nit mooy mooy Mudar ak naan Adi mooy Nisaar mooy papaam Nisaar maar mooy papaam waaye nag lañuy jaay ak naan fa taksibuhu xad jaa min al-alamin képp koo xam ne jéggi na ak naan Cheikh Alhaji Malick ne nañ ko weddi kuy lii maam yonent ba weesu ab naan nañ ko weddi ñu ne ko maam lu tax ñu wax loolu mu ne si maam Muhammad moo ne képp kuy lim sama maam ba yeggee ca ab naan boo weesu ab naan nañ ko weddi ndax mën naa dugg ci erreur adnaan xam la maa li shaani awliyaa dhakru isbaqtu nasraa fi batni ubihim maam moomu ci boppam nga xam ne moo jur ki nga xam ne mooy mooy mooy man adi nisaaran maa adi mi ngi lim nisaar mooy nisaar maa ci mooy moo nga xam ne at naan moo jur maa maa moomu ci boppam bi nga xamee ne armiya buur la boo xam ne buuru nasaraan la dafa duggoon màkk di leen toroxal ndax màkk demoon na jamono joo xam dañ doon xotti xorma yàlla ji di toroxal ay yonent ndax li am nañ xurumaatullahi fan hataku is xasulu an ngellaahi min juróomi ndax arab yi dafa am jamono ñoo xam ne li leen yàlla santoon dañ ko arrêté defuñ ko li leen yàlla digal defuñ ko ñuy def ay bàkkaar guddi ak bëccëg di jaamu leneen di jaamu ay estati di toroxal mboolem ku baax di rey mboolem yeneen bi loolu amee nag yàlla yebal ci ñoom buxtu nasar buxtu nasar di buur bu am doole song leen xeex di leen rey di leen toroxal di leen def lu bon mu ne ndax lan ngir mooy yàlla gi ñu nekkee woon moo tax dëkk ba la dàq mooy yàlla rek dëkk ba ëpp la ay musiba yu fay wàcc loola tax góor jigéen yeeg yeneen yëpp yàlla ñu ci yàlla musal ndax dafay yàq réew dafay yàq environnement bu réew ñu ngi ñaan mbokk yooyu nga xam ne ñoo ci taxawoon yàlla sàmm leen bii ak am ak mboolem jullit boo xam na rek loolu taxaw na pour mu bañ a am na bii ak ñu ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam moomu nag ba nga xamee ne arméya dugg na ci nas euh, arab yi leen rey te maa dafa yere léegi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko ñaari malaaka jëlee yóbbu ko rawale ko saam ngir lan ngir bañ mooy arméya yaala ko ndax léegi Sayyidina Muhammad gi nekk ci moom. moo tax ku liiru yonent bi nekk ci yow rek yàlla ci boppam moo lay sàmm yàlla ci boppam moo lay aar yàlla ba kenn bu mën a am accès ci yow ba am dara lu muy def ci yow ndax mooy maam li tax ñu yóbbu ko leeru sidna Muhammad yi nekkoon ci moom ndax is kaana xaadaru wallahi kaana ala xifsi illahi bila shakkin wala tuhul ndax moo yenn oon leeru sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yebal ay malaakaam ñu jël Maab yóbbu ko Saam ñu ne déedéet du ay malaaka ñoo ko jël de ndax wa qiila fal malakaani xaamilaani bihi wa zaa xadiisu ibnu Abbas alxikam ibnu Abbas bi nga xam ne borom xam-xamu sases la dañoo wax ne Maab moomu ci jëfu boppam ay malaaka ñoo ko jël yóbbu ko Saam pour rawale ko ndax leeru Sayyidina Muhammad ci la nekk ñu ne déedéet du Maab ak naan bi nga xam ne moo jur maar moom lañu malaaka jëloon yóbbu ko fan saam ngir rawale ko ndax ba ñi bañ koo rey ndax leeru yonent bi wa sallam bi nga xam ne moo nekk ci kon nga yëg ne la yàlla waxoon sayyidina Muhammad wallahu ya'zimuka min annaasi man yàlla subhanahu wa maa lay aar ci pexe nit ñi ci nit ku ci nit ku weex ci pexe nit ku bon ku ne yàlla na ko Seydina Muhammad maa lay aar ba kenn du mën ci yow dara noonu la yàlla aaree njabootu yàlla aaree waajur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ni a si àddina ba ni salaa sallam ni ko mu duggee yàlla na ko la taxaw biir ak ndax keroog ba nga xamee ne ëmb nañ ko moom yi dañoo laaj a nii nii ñam yàlla ne dama laa sàkka ba leen sikka ne man yàlla ci boppam inni xaafisuhu maa koy wattu maa koy aar moo tax yonent bi judd na fekk papam génn àddina waaye yàlla nekk ko ci kanamam nekk ci gannaawam nekkee ko droit nekkee ko góosum subhaanahu wa taala ci rasulillahi alayhi salaam kon kenn si Seydina Muhammad yàlla ñu yàlla soppaloo yonent bi bëgg loolu rasulillahi i salaatu wa salaam ñaan yàlla réew mi yàlla fi yàlla yokk jàmm yokk fi sutura ci barke yonent bi alayhi salaam ndax réew ba ñi kat réewum Cheikh Sidi Mahamad Malick réew maam Borom Touba léegoo réewul maam Limaamu Laay réew maam Abdoulaye ak maam fi lu jaamu yàlla kon yàlla ñu yàlla defal jàmm ci barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel télévision yi di Salam Vision ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar nuyu Hadisa bi nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo di ko ñaanal yàlla jàmm bi ak biti yàlla yokk suturaam ci barke Seydina Muhammad alayhi salaam ñaanal sunu wéy ju yàlla yokk saafaraam ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak mboolem koo xam ne yaa ngi ciy lal hôpitaux yeeg ak ci biir kër yàlla saafara leen ñu nekk ci kaso yàlla xet leen ci barke rasulillahi boo xam ne bu yàlla rasulillah alayhi salaam ngeen am jàmm mi am jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Khadija ma ngi fàttali sama soppal maa ngi ba ak soxna Fatou Faye ak soxna Mariama ba ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel télévision bi ci sama émission wasalaamualeykum taala wa Moodu Lamin mooy sama gër